mu ne ku lekk avance di nga bëree. Mhm. fekk ñu naa ko daga ibaadu nga xam lu kenn xamul ak lu kenn xamul. yoo xam ne ibaadu lan mooy. ndax 200 pour cent bi ñun du ñu ñaanuñu yàlla mu tàbb ci suñu parce que bu ñu ne waaw rek waaw la. Mhm. bu ñu déet nag yaa ko. Modou Lo du bëre kenn ku dul Ama Baldé pour mu leer. jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu. di leen siyaar bu baax a baax di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen. di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi sunu borom doole tey nag ñu seet si koo xamante ni kenn doodu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté ci làmb mu di Abdou baaxum nekk manager ci kii di Ama Baldé moom lañ fa yéene ñëw seqal waxtaanu làmb ak lépp loo xam ne xew-xew jamono la père dama lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waaw jërëjëf mbër maa ngi lay nuyu euh, xam naa ne guy gi quatre-vingt-quinze lañ la gën a ne <laughs> waaye nañu yem ci foofu quoi parce que xam naa ne ragal naa ne bàyyeegoo nag affaire yi <laughs> euh, kon nañu bàñ ci quinze quatre guy gi quatre-vingt-quinze <laughs> mais di nuyu Sénégal di nuyu sud bi di nuyu lambo làmb di nuyu surtout nag le diaspora di nuyu ñëpp di ragal nag sama xale yi nga xam ne ñu ngi nag en Europe ñoom Yaya Jammeh ñoom Khadim saar ñooñu ñëpp ñoom Sadio Ndiaye ñoom maa ngi leen di nuyu ñoom Mansour nga xam ne moom it sama cheikh la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di daal waa CNG di nuyu bu baax a baax euh, di commencé ministre de sports ba culture maa ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla sax borom. Euh, waxtaan bi fekk leen ci jàmm ci kàttanu yàlla. Uh-huh. père fu may commencé naka nga gisee combat yi nga xamante ne am na ci weekend bi passé mu mel ni euh, am na lu mu ënd ci làmb. am na beneen format boo xam ne tamit dafa na ci làmb. waaw xam nga euh, bëre moom làmb la dafa am tànki gannaaw am tànki kanam euh, te euh, ni ma la ko mën a waxee mooy képp koo xam ne rek da nga yéene jàmm làmb danga ñaan yàlla mu am tànki kanam ki nga xam ne nag yàlla daa dogal làmb da koo teral ba mu yegsi fi mu yegsi bëgg a jëlaat làmb. dell waatu ginnaaw yan ko yàlla um moom ba kooku ñiy def loolu yàlla bu leen yàlla may euh, maanaam sago bu ñuy jéema loolu ndax am na ci façon yenn yenn mbër yoo xam ne yi maanaam pommeteer bu nëb la ci biir saako dañ leen war a seppi rek leen ñooñu nag dañuy ke ñooñu dañuy ñaawlu seen façon ni ñuy doxee ci biir làmb nga xam ne ñoo bëgg a yàq làmb yal nañu yàlla mos ci ñooñu. d'accord ma ñëw ci combat euh, Marley ak Zarko Marley Marley ak Sokh. naka nga jàngatee combat boobu. waaw combat boo xam ne bi kenn ku ne ci da nga bëree li nga xam ne nii mooy euh, conseil parce que euh, ku mel ni soq dafa jóge ci combat boo xam ne bi euh, combat la boo xam ne daanaka combat boo xam ne bi dafa bokkoon ci ci carrière am diggante moom ak c'est la première fois jour boobu làmb ji fees barrage waa Pikine teelaw ñëw dugg ci làmb ji feesal ko del mu bëri ci itam wax dëgg yàlla bëre boo xam ne bii jàppoon nañ ne ci bëri ci xale yu yi nga xam ne sax duñu seetaan duñu dem làmb ndax dañu seetaan rek jàppoon nañ ne combat bu waroon naa gëm na demee noonu suñu borom def la gën ndax it la gën rek la kenn ku ne ci war nga xam ne euh, bala nga ne naam ne fa te bari ne tey jii nii lii xew ci dëkk bi di di ko jaale sax de passage di ko jaale Sénégal yëpp ndax loolu la ñu waroon a ubbee mm. muy accident yi di am ci àdduna bi yëpp mënoon ngaa gañe sax combat bi bokk ci oto yooyu bokk ci ñe faatu. Euh, te ñe faatu gënuñu ñi gënuñu ñu ñi dem. waaye ñi si des gënuñu leen. sunu borom moo ko dogale noonu di ñaan yàlla ñi ci faatu sa borom may leen. Euh, ñoom itam ñu tàbb jant fi daw si. jéggal leen seen i bàkkaar. seedi bokk itam yàlla may leen xolu muñ. ñu yàgg fee ci seen biir di leen ñaanal. kon ci loolu dañooy jàpp rek ne looloo gën moo tax mu defee ko noonu. kon combat bi bu ñëwee perte ko waaye gañewu ko. muy nul ndax itam làmb moom ñaaray dugub xanaa bi leen di ñetteel sax kenn du ko séentu ndax kenn benn mbër ñaan yàlla dem naa yàlla naa nii da ñaan yàlla yàlla naa gañe kon ñaari na may dugg waaye benn fi génn bu beneen bi génnul benn génn itam nii la fay taxaw mm-hmm. ci gënalu ñëpp gënalu amateur yi gënalu mbër yi dëgg la moo tax mu demee noonu soq jógee fa ni day bàyyi làmb bàyyi làmb soq noo loolu wax waxi kii la rek xelal la boo xam ne bi ñun màggi Pikine am na luñ ci fu ñu war a mën a taxaw ci moom xam nañu ko parce que euh, jàpp nañ ne ci kàttanu yàlla bu doon ñaari fan ñoo ko jiitu ci làmb am na yoo xam ne yii bu fekkee ne yow yàlla daa dogal nga di ko def te xëy na surtout ko ci sa carrière da nga doon jàpp danga nga doon jàpp rek ne ci kàttanu yàlla xëy na da ngaa waroon di am ay ndam di continuer mais euh, jëkk pousse bi mu réer yàlla na ci yàlla musal mm-hmm. moo tax euh, mën na neex ci début bi. naqari ci fin ba mais mën naa naqari ci ci ci ci début bi neex ca fin ba. jàppoon ni combat bi daf ci. daf ci wéet daf ci wéet moo tax muy day bàyyi. non du la sax xam na ne dafa séntu rek ne da bëgg am ndam euh, te ndam li demul noonu suñu borom sagal na ko nag ndax itam kenn ko ne da nga bëri la mën ngaa dem daan mën ngaa dem ñu daan la ndax nit ci mën ngaa dem ñaanlu ñu ne yaay am ndam nga ñëw ba ci làmb ci làmb ci changé. Mhm. nga ñàkk sa combat ak ñàkkin bu doy waar. am na ñoo xam ne danañ dig combat. ñu ne boo demee am nga nam fii amaat fii am nga ndam fii amaat ndaw fii boo demee bu soobee la yaay am ndam nga dem ñu def la lu ñaaw ci làmb benn ñu dóor la nga daanu wala ñu ñu teq la nga daanu wala ñeen la ba ci ko dóor ci suuf nga ñàkk say komba dëgg la te loolu lépp mën na la ñëw bëgg mën nga am ndam téye ndam sa loxo ba ñëw ba ci biir enceinte bi ba ci biir làmb ji nga ñàkk sa ndam loolu nag suñu borom rek lay soob ci ko mu mën koo am mais itam pour mu ñàkk ko rek da koo teg ci suñu loxoy suñu borom. ndax xam nañ ne xale la boo xam ne bii mën naa am dara ci làmb. ma ñëw ci Zarko Ada Fass bu bari woon coow am ñu bari doon xaar violence donte bi mu jeexee xaw na am ci biir stade bi Zarko Ada Fass ñëwal ma ci combat boobu. non xanaa di di di rafet lu bëre bi bëri nañu ci yoon ci ngor kenn dawut ba jël am mais li ma ci ñaalu mooy yàq bi ñu yàq stade bi. Mhm. amateur yi. yu yu ba à pass ñi ñu doon demee siège yi di ko sànni metti nañu loolu ba ci kanam yàlla man boog en personne te metti na làmb te jàpp naa ne loolu bu fekkee na ñun dañoo ñun ñëpp kenn ku ne ci da ngaa yàlla yóbbu say ndam say xale ci làmb doo gis Pikine waa way wala Parcelles ñoo xam ne ñi sax dañuy damm ay siège di sànni ak ah gisaguma ko bokk mm-hmm. gisaguma ko muy Pikine muy Guédiawaye muy Parcelles mm-hmm. kon ci wàll yi nga xam ne bii Euh, noonu lañu ñu ko defee man rafetuma ko. ba nga xam ne xale bi muy Ada Fass tollagul fu muy amee bay ñàkk. ki mu doon bëre mag grand frère ma ci làmb jiitu ko ci làmb. bu ko daanee war na ko mën a daan mais bu Ada Fass daanee war naa daan ndax xale boo xam ne ba xale bu am valeur la ci biir làmb. Mm-hmm. mbër moo xam ne dangay ngay raché làmb feesal ko dell mbër mu mel noonu. képp ku xam làmb ku ne da ku ko war a yéene jàmm mhm. ndax làmb bari na ñoo yàqkat yoo xam ne tey jii euh, mën naa ne bu ñu gisee làmb ji fees nii sax seen xol du sedd xëy na bu ñu sañoon dañuy làmb ji de am ay sooxe sooxe mhm. ba mu yàqu mais xale yi koy feesal làmb ji boo ñëwatee ba ci digg làmb ànd ak sa mbër li mbër yi di defalante ci biir géew yow mi ci kaw sa yoon nekku ci staff bi nga xam ne moo ànd moom ba ci làmb ji ñoom ñoo ko war a seere mhm. waa CNG ñu nga fa serviteur baa nga fa la preuve mooy gis nga Zarko ki mu àndaloon ki doon sotti ni nga xam ay saw la xaw ma seen sepa kooku dañ koo jàpp ba léegi génn ko stade bi. Mhm. lenn loo def ci stade bi lu ci bokkul dañuy dal ci sa kaw. Mhm. mais quand ni romb la nga sànni ko xeer wala nga sànni ko mbuus wala nga sànni ko ndax sa adversaire mhm. euh, sa adversaire la rek yooyu mën na ñàkk. yàq tam amul fenn ku koy rafetlu man de du ma ko rafetlu man. en vrai dire d'accord ma ñëw ci combat Modou loo Ama Baldé ñu wax ci ci règlement combat boobu ci wàllu këyit. fan nga ci tollu yow manager bi ak CNG. non man euh, man moom bu ma déggee sax ay sorti yi ñuy am damay yëpp ay tuuti reetaan ndax euh, nit ci mënoo nekk nit ba pare bëgg a nekk dof wala nga yaakaar nit ñi yow dong yaa xam nit. da ngay toog ci say biir rabar say loxo sax dellusiwaat da loo def. Mhm. na am naa lu ma def ñu xoolee la defoo dara rabas ke say loxo génn def naa lu ma def xam nga ne defoo dara. Mhm. noonu la mbir mi demee. Mhm. combat la boo xam ne bi du Ama Baldé moo am droit refuser combat bi du Modou Lo moo am droit refuser combat bi man mii mënuma ko Assis mi signé mënu ko donc man li koy li may nekk ba di ko dégg ma koy dégg ci mbedd mi loolu concerné moom. muy ñaari mbër yëpp liñ ci wax lépp am leen lu kenn lu ci waay wax rek man lijjantiwuma lool la may lijjanti mooy sama këyit yi ma yore nga xam ne ki ñu ko ku coiffé làmb muy di la jox licence. Mhm. di la arbitré di la fay sa reliquat mu seen de lutte. Mhm. bokk ci ministre sport de des bokk ci état man ñoo ñu lay déglu. Mhm. li ma wax ak ñoom séyante ak ñoom ci ay këyit ak promoteur bi. promoteur bi mën na sax am na kayit yoo xam ne bu xasee dem ba ñu régularisé combat bi dugal reliquat yi parce que man dama jàpp ne combat bu ñu xasee régularisé jàpp naa ne reliquat dugg na. Mhm. reliquat yi fa nekk nag. ñu régulariser combat yi jox la nombre de nga toog ba combat bi des 15 jours xam nga yàq ko ne man gaañ ci mbagg dem placer sa mbagg te dara dalu la. di dof dof loo koy dugg fii naa ma damay du ma bëri rek yooyu moom moo ko du kenn moo ma koy wax CNG moo may ñëw naa ma yow sa mbër ak diw dootuñu bëriwaat man laaj lan moo waral dootuñu bëriwaat ñu wax ma lu ma ci yoon may maa ak sama diggante ñoom man laaj leen ko ba ñu wax ma ko ca loolu laay jàpp mais du kenn ku may déglu wala dara li ma ci xam nag ci wàllu kayit mënuma ko wax waxtaan fii ci télévision bi wala ci rajo di ko wax hmm. waaye daal li ma mën a xam mooy leen pour ngeen xam ko yéen leen li koy yàq combat ba la koy yàq du jóge ci man du jóge ci mbër mi du jóge ci staff bi du jóge fenn CNC lay mën a jógee ma jox ma ko ma jàpp ko laaj leen lu ko war a ñu ne nangam lu ma ca yoon may ma xam ko. mais combat bi ba tey kon mu ngi en cours. non combat bi lu ko yàq combat bi mu lekk avance moom en personne Modou Lo dina ne man damaa faj bu ma fajee bu ma wéeree dama ñëw bëri si. damaa gaañu rek bu ma fajee am ma kenn ñu ne ko kon ngay bëree mu ne na damaa lekk avance ku lekk avance Maxime Bergan sax laaj na ko ko mu ne ku lekk avance di nga bëree. Mhm. fekk ñu naa ko da nga ibaadu nga xam ma lu kenn xamul ak lu kenn xamul yoo xam ne ibaad lan mooy ibaad. waaye yow mais wax nga naan yow yàq li ngay wax. da koy assumé bu fekkee ne man la ma wax nit ñi àdduna àdduna ñu ko dégg yépp mooy ñeemewoo booy bi booy bi xam na ne ñeemewoo ko sa staff ñeemewuñu ko ak ñi nga àndal ñeemewuñu leen loolu doo ko tax mais li wóote war mooy ko lekk awal tëdd pom pour muy leer xob la nag boo xam ne bii du ko dugal ci pax mi génn wu ko ca de li nga bëgg ak lii war a am ak jàpp ak soree kon da nga jàpp ni Modou dafa ragal Ama moo. loolu àdduna ko wax sax loolu xam nga tay naa ci wax sax man. Mhm. dootu may joxaat. Mhm. que am na fee yoo xam ne wala boo koy wax sax ñàkk fayda la may niru. Mhm. maanaam doo xam sax ban façon ban façon nit nga. Njaay nag nee na lay tax a naaw buñ ko suqee naaw laaj ma leneen. mais man démb ma déglu ko ci ay waxam muy lim ay adversaire ñu siiteel ko ci Ama Balde mu ne Ama Balde bokkatul ci sama yoon. loolu la dem wax ko CNG combat bu ñu réglé deux fois nga refusé ko le 25 décembre nga refusé ko ñu boot ko le 13 mars nga refusé ko ñu jox weer contrat yi jox la say jox la sa avance bàyyi fa reliquat ba ñaari mbër yi seen ñaari ménagères signé promoteur bi signé seen seen signé ñu ne la combat bi. nga ne ma combat damaa feebar ñu reporté ko ne la yow amel nga promoteur bi combat mais boo amel promoteur bi combat heure boo fajoo ba wér ñëw bëre ak sa adversaire soo fekkee sa adversaire am di combat da ngay toog xaar 10 combat yi jeex nga bëri jeeg moom doo kenn ku du sa adversaire sa combat bi bu yàqoo yàqul ci sa adversaire ci yow mii la yàqoo nga d'accord loolu signé loolu nangu ñu jox la sa lettre jox ma sama lettre muy lettre boo xam dafa jóge ci administration bi ma yore ko moom mu yore ko manager ko promoteur bi yore ko CNG yore ko nga ko defaraat nga ne du ma sama góor ko xanaa loolu yéen ñii la koy wax ak ñi nga xam ne kii la di na bàyyi foo xelam mu muy fooyee te dem mu defi leneen moo gën moo gën yii muy wax nii ñi xam làmb sax dañu xam ne ne li mu wax ni tegu fenn. lan nga jàpp ne moo waral Modou Lo di refuser combat boobu. non loolu loolu moo la ko sarree mais li ma mën a jàpp mooy këyit yi ma yore man li ma concerné mooy këyit yi ma yore moom yii muy wax man dama jàpp ne waxi picc la. du hmm. waxi dara. kon yow ba tey jàpp nga ni yàgg Modou Lo yéenay bëre. loolu par la. loolu bu këyit yi jaaree fi ñu war a jaar jaar ci CNG mi nga xam mooy ndilib parce que man naa la man du ma ciy déglu kenn sincère laay déglu li ñu wax ak man ma déggante ci ñoom ci déggante ñoom guddeeg bëccëg di leen ci laaj ñuy wax ma lañ ma ci wax muy ñaari fan la muy ñetti fan muy fukki weer la muy ñaar fukki weer muy fa dee quatre ans ba dugg sa cinquième année ndi toog di la xaar ngay gaañu fu ne nga yàlla yàlla daw jaar ñu ne fu ne nga taw si kim ne da ngay xaw a lan kenn xamul li nga doon am na yoo xam ne nag li def parce que am na loo xam ne tey ji maanaam yàlla du ko bale kenn yàlla am na yoo xam ne yi boo ma tooñee yàlla ne man du ma la baal demal ci ki tooñ mu bal boo tooñee yàlla yàlla mën na laa baal ndax yàlla la bind bind ma. Modou Lo dafa tooñ am na loo xam ne nag boo ko defee na nga xam ne loolu àdduna da topp ba biir bàmmeel. mooy lan Modou Lo ku ah, tooñ moo xam ne li may wax li may wax du du loo xam lu xam na ñoom li ñuy wax bu baax moom xam na ko. mais pourtant Modou Lo ci ay këyit moom nee dafa am blessure. ñu toog la quatre ans xaar la ngay faj yi kii am blessure nga ne dama ko xaar loolu ngor la non wax ma itam. Mhm. c'est une question da ma laaj. Mhm. mais yow ma war a bëree yow yow en tant que jaar nga ci bëree bëree nga gaañu ma toog xaar la ba war a bëree ak keneen wala ma war a bëree waat ak yow toog gaañu lan mooy ngor. bëree waat ak toog xaar. ba ñu bëri ñu bëriwaat foo teg ne doo bëriwaat te nga gaañu xaar pendant deux ans ou trois quatre ans doo ko teg na ma xaaruma woon dañuy nangam ak nangam moom moo loolu moo ñu dafa yor suñu dépense wala dafa yor suñu kër. Mhm. ñun dañuy liggéeyi. Balla Gaye mi fi jël quatre quatre combats yu mel nii rek la dafa sax maa koy nuyu bu baax a baax moom Balla Gaye quatre combats yi mu jëloon yu mel nii la parce que bari dañu amoon na suñu génn góor gu ñuy wax foo dem du suba. daa dem ba bu la daaneel dootu wàcc sa kaw day wax da xaar photo mhm. Sénégal amu ne caaxaan mhm. caaxaan yooyu nañu tàng jógewul fii yaa may dégg dara du fi avancé dara du sus nañu bàyyi seen naafeq yi ñuy doxal nii wala dara nañu jéem a góorgóorlu seen kéem tolluwaay te dem bëri ji. sànq maa ay affaire yu naafeq la. dégg nga say wax nga naan euh, xaw ma saako bu bu bu pomme xaw ma noo ko waxee bay noonu. waaw am na façon yu bëri yoo xam ne ma yàlla baal baal te ma yooyu ñoo ñooñu façon pommiteer bu nëb xam nga soble bu nëb sax la. mooy kat xanaa ñooñu dañoo war a dindi ci làmb ci parce que du ñuy référence ci làmb. mais roi des arènes ngay wax. non ah mën na nekk moom ah moom. yaa ko tudd mën na nekk moom mën na nekk keneen. <laughs> d'accord après combat euh, mu ne affaire bi daloon Modou Lo tamit gars yi da leen xaw a dal parce que combat bu des presque deux semaines. Ama dafa blessé. déedéet un mois la des un mois deux jours la des un mois deux jours la des faj na ko forcé parce que nag yaa ngi nii dem maa ngi nii dem nga déplacé daw sa kilomètre pour ñëw ci man man may daw ay kilomètres pour ñëw liggéey si nga fekk ma sama bërëb bi liggéeyukaay. dëgg la nit liggéey si ne fii ba tey. di ñibbi ci yoon wi am leen ak leneen fekk la ci. Mhm. sa bopp metti wala sa baaram metti wala nga faxaj wala sa wala sa baaram damm loolu ci wàllu liggéey la médical. Mhm. bi ngay am du médical boo xam ne bii du luy war a la du waral mocc la du damm damm du dara xam nga lan la médical repos la. Mhm. reposer quelque temps mën a bëri si waat mbër yi fi am quatre combats bu neexoon am mu jël quatre combats ba cinq combats mais dafa daw xaar adversaire am armé sama adversaire comme dafa yàlla dafa dogal mu feebar man du ma jëli kenn naa ko xaaral ba mu wér bu wéree man bëre keneen gars yi na ko jëlal combat jëlaatal combat ndax ñi fi nangam nag mu ne ma ne naa xaar sama adversaire ba mu wér ñu bëre ma ak moom ma seeti leneen. Hmm. ñi toog xaar la ba tey jii amoo ngoro mën a toog xaar nga naa man ak nangam ak nang luy loolu luy loolu. mais mais dans que vingt vingt et la am moom Ama Baldé vingt et un jours du un mois 21 jours la am 21 jours dañoo ñaan yàlla balaa 20 jours yooyu mat ñu déggoo suñu certificat de guérison comme quoi que wér nañu. parce que li ñu dal du lu ñuy opéré du ñu def dara maa ngi dégg sax borom lam yi rëy naa la muy dal ay gribo da naan la muy la ko dal mat c'est faux yow xamoo dara ci affaire médecine xamoo dara yow papier boo xam ne bii dañ la koo jox mbër mi joxuñu la ko man mi ñu ko jox sama loxo sax ma jaar ci nga xam ne maa ci a mën a enveloppe bi ni ma ko joxe noonu laa ko joxe waat au niveau de CNG. ñu déposé que ne dem leen def li def li ñu këyit waat këyit yi joxaat ci amoo ma joxaat leen ko moom mbër xam na ci bi dossier bi en tant que yooyu nañ ko bàyyi. yi mbër yi te yéen yéen yéenay mayante xaalis ngeen yéenante jàmm waaye sama non dama ko yéene jàmm ak noonu di wax wax ju rafet c'est faux yéenante wu leen jàmm yéen ñëpp a yem. d'accord tey ñaari combat yi nga xam ne da yàqu presque léegi mu def 4 ans wala 5 ans. loolu noonu ci ci ci du andil Ama ci ci côté ci côté ci côté làmbam parce que heure bi waroon na fekk mu bëree plus de cinq combats mais ñaari combats téye ko pendant cinq ans loolu du problème staff la wala problème lan la. Euh, sant yàlla bu baax. Mhm. ndax kenn ci dara. Mhm. ñoo ngi toog nekk suñuy waajur ànd ak suñu ngor ànd ak suñuy soppe ànd ak suñuy am di jàmm fonk suñuy dëkkandoo di def li ñu war a def itam. sàccuñu nuñu defuñu loo xam ne lii ku ñu gis xeeb ñi ca ñoo ngi war a def fu ñu war a def uuf ay waajuram liñ ci mën mu def ko ci seen kéemtu lay kattan ku toog 4 ans ba dugg sa cinquième année bëri woo di mbër war ngaa xam ne du dewoo suuf loolu nag dañ ci sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñi xañ nañu génne seen xaay sax jox leen ko muy avance ñu nekk ci muy ko lay Enko ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Diop mi nga xam ne mu ko mujj a tëgg moom ak Giri Bordeaux mm-hmm. muy nit ñu baax ñoo xam ne ñii man xam naa leen bu baax dañoo am ñu am volonté lañu. d'accord ñooñu buñ ne yéene nañu mbër yi jàmm dinaa ko gëm. waaye mbër yi ci seen biir am na ñoo xam ne ñii yéenante wuñu jàmm. d'accord seen i mbokk. d'accord seen i mbokk bu ñuy waxtaanee ñoom dañoo war nañoo xam ne dañ leen a woore leen yéen am leen jàmm ak seen biir. d'accord foofu noonu lay ñëw. ñu gis coow loo xam ne fan yii am na biir Pikine mu di avance bi nga xam ne dugg na fa Modou loo jël na Boy Niang euh, coow li commencé bari biir Pikine combat boobu noonu lan nga ci wax. Ah, man day dégg guma avance bu dugg foofu dégg naa nag ci réewum nag ñu ne jox nañu Modou Lo beneen avance. muy Boy Niang ko ak koo bëgg a bëreel. Mhm. juróomi mbër lañu ko limaloon seetaan na ko moom ci benn léegi benn groupe. Mhm. mu sëppi ci ñeenti mbër. kon loolu moom la engagé. mais tey loolu noonu mënut a indi jaxasoo biir biir Pikine. non ñun dañu jàpp rek ne ak lu mën a xew ci àdduna ak lu mën a xew waxuma liy xew xaw ma liy xew suba ak lu mën a xew ci àdduna ñun kenn kenn ba xamaguma ne ndax li ma li ma li ma yor ci sa metti rek laa xam. kenn du bëreeg Modou Lo kur Ama Baldé Ama it baraa bëreeg kenn bu promoteur bi ñëwee ne léegi damay réglager sama combat mooy Luc Nicolaï ne damay réglager sama combat dama sama combat ak Modou Lo la ma di ma xam ci Luc Nicolaï yi nga xam ne parce que def na ci combat bi lu ëpp 300 millions man ci li ma xalaat ci li ma xalaat rek li ma xalaat ndax combat bu ñu jàpp mu mu mu mu éva mu évaporé mu jàppaat ko mu ya échouwaat man jàpp naa ne ñàkk na ci lu ëpp 300 millions. lu ko ëpp 300 millions lu ko ëpp rek mën naa demee milliard. waaye man jàpp naa ne li mu ñam am ci xaalis ñàkk ci xaalis ci combat boobu man jàpp naa ëpp na loolu fuuf ku ko bëgg a yàq nag yaakaar naa ne da jaar ci koom jàll li ma xam ci ko Nicolaï. d'accord tey est-ce que booy ñaa yoon la tamit. muy jël boo est-ce que Boy Niang war na jël avance su Modou Lo te Ama Balde war a bëri ak Modou Lo parce que maa ngi dégg ku ci mel ni Alaaji Mbay mu ni bu doon Ama Balde la du ko def. non xam nga euh, ñun euh, mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu euh, en tant que magul Pikine xëy na sax mën ngaa daje xale yi ñu wax seen xalaat waaye man gisaguma fu ñu signé wala gisaguma ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoo war a staff Boy Niang ñu ne jël nañu Modou Lo Modou Lo it déggaguma mu ne jël naa booy ñaar comme ne na birum ñing ne na mooy euh, menacer am loolu la wax ne na birum ñing mooy xam nga man loolu tax ba birum ñing bare signé si combat ak Ama Baldé ki dama ko daq dama ko ne du ma yow parce que doo ménager moom nag na ménager am la waaye man c'est pas des ménager du ménager pour man léegi ndax ba may signante ak Modou Lo du moom laa signanteel à Cissé laa signanteel à Cissé mu am katti kayitu la war a ne ménager la moom du ménager donc loolu nag bu nee noonu lay noonu loolu moom lay bëreel dégg ma xam ko ndax dégg ko mu ne ma boo ñaa laay bëree boo ñaay déggaguma mu ne man Modou Lo laa soxla wala bu mu daal laay bëreel estaba bi ma ñu wax ko laaj nañu déggoon bu ne na magi Pikine yi réunion waxtaan loolu waxtaan moom bu dul combat ba ba ci dañuy yàgg di waxtaan ndax suñu pour cent bi ñaanuñu yàlla muy yàqoo ci ay yoo xam ne yoo xam ne nit day taxaw fee tax du ñu reetaan. mais 200 pour cent boobu noonu. 200 pour cent boobu noonu est-ce que dëgg la parce que souvent day bëri ay coow boo xoolee combat soq bi da cee wéet gisoo kenn ku ko taxaw ak coow yi nga xam ne mu ngi am biir Pikine nii Modou Lo Ama Baldé Boy Niang waru ko jël extra est-ce que 200 xam nga xam nga euh, ji euh, Pikine na mu war a fees rek la feesewul waaye comme soq ba muy bëree. maa ngi Pikine nekkoon ci ginnaaw kenn xamul mu toll maa nga fa woon Dégol la nga fa Jules Baldé nga fa euh, euh, euh, Ibou Cissé nga fa bari na staff ay nijaayam ñu nga fa ca kaw ñi nga xam ne ñu wàcc ñu sax à 100 pour cent ñëw xëy na am na ñoo xam ne amuñu accès parce que lamb ji léegi boo dul mélangé boo xam ne bii da nga indi mbër pour ñu wàccee la dañ lay wax yéega ca kaw porte bi santé di jaar sax boo amul mbër doo fa jaar kon mag ñi fi nekkoon ak ñeneen ñi nekkoon ci toog di xool ak ñaan yi ñu kon ñaanal bokk na ci xëy na bu waroon a ñàkk combat bi sax mu ñàkkul combat bi parce que combat bi da ngay gis ne ne àdduna bokkoo ñëpp bokk dajee ànd ak moom ànd ak moom ñëw yàlla dogal mu ñàkk combat ba waaye ne bii xëy na dañoo ne ñu ci bare bari xalaatoon nañ ne combat boobu war naa mën a war naa mën a gaaw warul mën a téye sax soq te jàpp nañ ne ci kàttanu ñu bari xalaatoon nañ ne combat boobu soq daa war ñëw rek gagné ko d'accord tey euh, yow boo taxawoon en tant que manager Boy Niang est-ce que combat Boy ñaa ak Modou Lo yow di ko jël ci ci ci en tant que Pikinois. non xam nga loolu euh, question de euh, question euh, maanaam ci ci relation rek la ci maanaam ci doxalin ba yaa xam sa xel wala yaa xam sa clé. mais bu doon yow am na ñoo xam ne nag am na ñoo xam ne waxuma sax bëre waaye am na ñoo xam ne ñi tey su sa xarit lay doon soo fasee sa jabar. moom moom suñu jabar mu tàkk ko doxaan sax du ko ko def yow mi xuloo sa jabar may sa xarit nga wàcc ko man mu wóor ma ne yow moo la tooñ ba nga wàcc ko man mën na maa doog moom man na maa bañ mën naa ko romb ci mbedd sax du ma ko nuyu man noonu laa bindoo noonu laa noonu la ma yàlla bindee sama nit kenn du ko laal amul kenn ku ci taxaw ci am bés te ñun taxawuñu la comme am bii nii da gis ne dañ cee taxaw suñu kéemtulaay kattan pour mu daan ndax deux 200 pour cent bi ñun du ñu ñaanuñu yàlla mu tàbb ci suñu wax parce que bu ñu ne waaw rek waaw la. bu ñu déet nag yaa koy dindi. yow yaa koy dindi sa bopp ba mu set. waaye ñun duñu ñoo koy dindi. bu ñu joxee du bopp ne na ñu ànd ñun ñëpp ñu d'accord ci ma d'accord ci keneen d'accord ci dama ne li koy yàq ñaanu mu yàlla mu jóge ci baaxum waaw laa lay wax ñu bu ma leen ne waaw dee koy dindi wala nga dindi ko sa bopp yow. mais combat boobu yéen d' accord leen ci pour Boy Niang. non man moom wax dëgg yàlla mënuma leen nii parce que ba léegi waxum dégguma ne combat am na fa comme ay d' accord nag du ma d' accord man dama jàpp ne Modou Lo du bëre kenn ku dul Ama Baldé pour mu leer damaa jàpp ne ci ñaari doomu Pikine yi ñoom ñaar réeroo wuñu te am na loo xam ne lii même bu la ko yoon maye ngor maye wu ah ci li ma xalaat boog laax ci li ma xalaat rek ndax it lu nekk nag doone dara mënu am dara mënut a am politique ak yeneen yi mën a am yu bëree bari ñoo bari ne tey jii da nga gis tey c'est politicien boo xam ne bii day ànd ak politicien bi saaganteeg moom defanteeg ma ay bagage xeexak ak moom xulóog moom bu subaa ñu àndaat nekk ànd nekk benn bu la ko yoon maye ngor mayu la ko waa loolu loolu loolu principe la ça dépend ci nit ñi nag kon da nga jàpp ni staff Boy Niang seen ngor waru leen a may ñu jël. booy non moom loolu waxagum parce que dégg gu ba ne combat am na bu mu dégg nag ne combat am na ñi ngi interprété yow li ngay waxe ni nga interprété keneen ñëw bu laaj ma ñu interprété nga déglu science yëpp nga déglu wax yëpp yow di nga xam fi nga jëm yow. di nga xam ndax lii war naa mën a am wala warta am di nga di xam ndax ñii lii war na mën a nekk wala mënta nekk loolu la ñuy xoolee. mais foofu CNG daful fay. waa parce que CNG itam booba ah xamagu ma parce que kan combat yëpp boobu lañu koy régulariser te ñoom bindante woon nañoo ñun ay signé yu leer. comme quoi que ne Modou Lo bu wéree heure bu wéree indi saf quadrison du bëree kenn ku du yéen loolu te gisaguma mu signante fa benn prom gisaguma ko mu signante fa kenn beneen combat bu ñu régularisé kooku ma mënaguma wax dara CNG damay toog xaar ba gis ne CNG jël na licence Modou Lo jël licence keneen ku dul Ama bëriloo ko ma doog a xam ne lii ñu waa def loolu la ñu def man laaj leen bu ñu ma lii yoon la man leen lii lan mooy ci sama yoon ñu wax ma la ci sama yoon ma xam ko su dee damaa xam ne lii sama yoon la ma jaar ca ma jaar ca parce que nag àdduna même kenn tëjul fenn ah. bu ñu la tooñee sax nga dem police boo fa jógee police am ne fooy jëm boo fa jógee am na feneen fooy jëm mën nañ laa àtte sax ñu nga àtte li nga àtte nga def sa appel del d'accord am dëgg. foofu la ñuy wax. d'accord d'accord euh, mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité tey. maa ngi jégalu nag jël naa sa temps mais kontaan naa mbër yaa ngi war a liggéey. waaw ndeysaan ma ñëw jël sa temps nga bàyyi lépp ñëw recevoir ma fii. fii nga mën ni mooy fan. waa fii euh, mooy Kone Plaque euh, nga xam ne sama benn frère moom itam moo nekk fii di defar plaque yi képp koo xam ne kii sa plaque am nga ci plaque yu bees yi soo ñëwee fii ci kàttanu yàlla doo fi taxaw même pas dix minutes ñu defaral sa plaque bu bees teq nga dem sa plaque blanc bleu blanc. muy deekaay yi boo amee benn bu ci xoos boo ñëwee machine bi nga xam ne moo koy defar machine boobu bu la defaree plaque yi moom ngay ànd ak moom sànni wala orto bi wala nga changé ko xëy na. waaye li wétu wër mooy plaque yu jaar yoon la te ci kàttanu yàlla xam naa ne kële ñi ay doomam la ñu ak jarbaatam. d'accord euh, ñu yàgg dëkk nag maa ngi moom. parce que mën naa ne 86 ba léegi moo xam ne muy liggéey loo xam am jàmm di di di participer ci Sénégal loo xam ne lii mën nañ ne. du ñëpp xaj na jam nañu ko moo jël ay nit employé di leen fay seen employé ñuy jël seen i ñaq di ci wit seen i ñaq fi di ko jox seen ak njaboot ñu ciy dund te loolu jàpp naa ne bu ko Sénégalais yëpp defoon kenn du am chômage du am ndax itam euh, xale la boo xam ne ba mu juddoo ba léegi maanaam ba mu màggee ba léegi xamee loxo ndajaram ci waat liggéeyam liggéey la xam kon lii bu ñëwee ci ay loxom tàbbi ci ay loxom dañ ko ko ñaanal kattanu yàlla. Mm. yàlla may de taal mais yow daal xamal nañu boo amee plaque yow moom. soo amee oto moom boo ñëwee. fii plaque fii nga ñëw ñu defaral sa plaque. incha allah ngi noonu ah moo nekkoon sama invité nekk Abdou Bakhoum li may wax rek ñun ñu ñuy doxee duñ dégg di fer naa wala dégg naa comme moom mooy manager Ama Baldé te lépp lu ñuy wax dañ koy teg ci ay kayit bi ñu déggee cool yi moo tax ñu ñëw ànd ak moom déglu ko mu wax ñu te lim ñu wax ah en tant que manager bi nga xam ne mooy signé wax mënu ko dañ ah ñu ngi noonu di leen jox yeneen di daje ci suñu yeneen émission